وبيننا وبين نار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدينا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن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 wa bi kulli nisfin nicmatan wa bi kulli rubin rifaatan wa bi kulli sumnan sanaan allah marzuqna bil alifi ulfatan wa bil baai barakatan wa bi taai tawbatan wa bi saai sawaaban wa bil jiimi jamaalan wa bil xaai xikmatan wa bil xaai xilaanan wa bi daali dunuwa wa bi daali zakaan وبراء رحمة وبزاي ذلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طاءة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالعين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية wa bil laami lutfa wa bil miimi mawcidatan wa bin nuuni nuura wa bil waawi wuslatan wa bil haa'i hidaatan wa bil laami al alifi liqaa'an wa bil yaa'i yusra wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-taahiriin ajma'iin allahumma barik fa ma qara'naahu wa nuura ma talawnaahu ila ruuxi sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam wa ila arwaaxi asxaabihi radiyallahu anhum ajmain wa ila arwaaxi جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات الله منصور من نصر الدين الله منصور من نصر الدين الله منصور من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وليك المتبى وأمينك على وحي السماء وحينا على سنتهم وأمتنا على ملتهم واجعلنا من أهل شفاعتهم واحشرنا في زمتهم واسقنا من حوضهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله بصدقاتنا هذه لمن جعلتم صبا معنا هذه وآتيهم بالقرآن من في قد الساعة الواسعة والحجة البالغة والقول الثابت والنور المستبين في لحد المظلم وجاف الأرض عن جنبيهم وارحمهم واغفر لهم ولوالديهم يا سد الكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آتيهم بالقرآن العمنا يوم الفصل الأكبر والرخاء إن الستر الميزان عند الخفة وتيسير حساب يوم العسرة والورود إلى الرحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ما آتاكم به من حسنة فتقبلهم وما آتاك به من سيئة فتجاوز عنهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلهم صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز رزق واسع ورحمة منك إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمسلمين والمسلمات اللهم أوصل صواب ذلك إليهم واجعلهم نورا يسعى بين أيديهم اللهم أكرم به مقامهم ويسر به حسابهم وداع به ثوابهم وجرحيق المختوم شرابهم اللهم أنس وحدتهم وارحم غربتهم وتجاوز عنهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ذي الملك والملكوت subhaana zil izzati wal jabarut subhaana alxayi allazi laa yamuut subuuxun quduusun rabbul malaka wa ruuxu اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام إنك لا تخلف الميعاد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى allahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin salat al fatihi sant la ci Seydil Hadji Malick radiallahu taala mu doon it ku baax feenu nekk ca kaw day jàkk jooju saa yu fa ñëwee moom rek lay jox muy jiite ba bu muy dem te loolu dafa nekk ci tarixa bi charte sa sëriñu sëriñ sa sëriñ la doomam sa sëriñ la sëtam sa sëriñ la comme sëtu Seydi El Hadji la nag sunu sëriñ la ngeen gisee ko noonu bañ ko gisee nen loolu rek la asalaamaaleykum wa rahmatullah Eh, taala wa barakatuh yàlla dogal nag kaamil bi maa ngi ko doogam teewee tey jii la ko yàlla dogal xëy na dana fi jaar jaar yu bare waaye tey jii la yàlla dogal ma teewe ko ci ay mbokk yoo xam ne yi ñoo di ñaan nag tabarakallaahu lu ñu jàng yëpp yal yàlla nangu te josoog xam ne ñoom lañ koy ñaanal ndax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam iqra'ul fa innahu yaati yowma alqiyamati shafi ashaabi alxuraan dina ko jàng ndax bu ëllëgee ma qiyaamati dafay dikk ci buntu àjjana di ramuñ ko doon jàng kon en ci saxal ñu koy jàng nag ak tey ak laab alxuraan koy jàng dañu koy déglu izaa quri'a al-qur'aanu fastami'uu lahu wa ansituu lahu la'allakum turhamuun ñu góor góorlu tabarkaalaw bëggante fonkante ndax jullit jullit mooy mbokkam yal na yàlla may ñu ñu dëppoo ci biir ak ci biti ñaan yàlla gàmmu gi yàlla mu nekk suñu gàmmu ku fi ñëw ak aajo en ko yàlla faj ku fi ñëw tawat en ko yàlla saafara fi bakkaar en ko yàlla jéggal seen mbokkum taalibi bu tudd xaasi margi wala Maodo ngoo doon jàng xam gi din ziyaara wa kullu aamin antum bi xayrin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaram ñaanal yàlla bi bokkal benn mbokk wax ñaanal ma yàlla yàlla bokkuñu bokkal tur bu doy waar waaw mag ñi fi ni mu ko waxee woon waxoon naa fi at mag ñi fi lañ daan bokkatu si macha allah kon dañuy jox kàddu gi rek ngay eggale doxali jàng ñetti ixlaas maanaam xul wala xam ñetti yoon ak benn ati kursi yu def ko addi ci yonte bi yónnee ko suñu papa suñu Babacar si yal yàlla yokk leeram ak ay waajuram ak ay njabootam ñu ñëpp nag yàlla fas ñu aajo biir ak biti doole jàmm ci réew mi doog ci dëkk bi ñaanal yàlla ki fi nekk tey di di bi si man suur di sama mag yal na yàlla yan bi ci kawam moom nag ku dëggu la sax moo tax ñu ko tuddee ñàkk caaxaan moom dafa dëggu moom dafa direct moom wax dëgg la kon yal na yàlla may ko gudd fan ak wér te yàlla way yan bi ci moom te itam yàlla dëpp laa ko ñu mu jiite ñu ñaan suñu bopp subhanahu wa taala kaamil bi yéen ko yàlla nangu bu bañ nekk suñu mujj kaamil ndax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam da ngeen jàng alxuraan ndax alxuraan ëllëgima xiyaamati fay ñëw ci buntu àjjana di ram ñu kon jàng kon ñeen ci yàlla boole ak ñu koy ñaanal ñëpp kon ñu jàng ñaan gi rek fatiha saatal fatiha ñetti yoon qul huwa ahad ñetti yoon aytu kursi yu def ko di ci yonent bi yónnee ko suñu waajur suñu Babacar Si ak képp jurit salaam wa di wax subhaanaka laa ilma lana ila ma allamtana innaka antal alimul akim bési tey noo ngi fii ci kër góor gi Mousse Gueye mi nga xam ni mooy jàngal Seydil Haaji Malick Samru Daani di def jataay bu yow bu tedd bu méngoog li alxuraan wax wa afu bil ahdi innal ahda kana masulan kóllëre démb jullit daf koo gëm ni Seydi Aji Malick meloon ak Moussa Gueye loolu moo tax ñu dekkal di def fii conférence di def fii kaamil ay ati at yàlla dogal nag sunu mbokki ñàng idi yi nga xam ne mel nañ ne ca Fuuta comme Tiwaawan nañu mel ca Kajoor te sunu maam mu yëw mu baax moomu dem barzaq di góor gi aadama Gaye meññe leen benn doomam ci ñoom kenn taaw fi ku ñoo wax Maodo Gaye ànd ak ñi mu àndal ñu ñëw fi nag pour siyaar mboolo yi siyaar dëkk bi siyaar ci siyaar bi ñu jox ko parole mu nuyoo wax mooy kan ak la fi indi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin fatihi lima ughliq wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaari azim wa radiya an cheikh tijaani allazi huwa qutbul maktum wa laa yashqa li kulli waliyin illa min bahrihi namir bokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaare di leen baalu xaq ci seen itte yoo xam ne bu ñu fi ñëwee bii ba tey bu ñu ñëwee ñu ngi ñëw ba tey toogu leen yéen a ngi dem di dellusi si ak itte yoo xam ni yéen na ko lamboo boobu tey ndax boo ittilee leen na dootul attan dara kon ñu ngi dee ci jëggal jëkk yëpp ndax mu ngi mel na sun tànk fii tànku bokk la <coughs> tànku jokk bokk la wax ma sax ci boori lislaam te yàlla moo innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha la'allakum turhamuun kooku yàlla moo ko jëkk wax rafetal leen seen bokk yéen julli ñu yeen bokkandee ak baay ñanga eddi ak bokkul ak dara ca gaaye ñanga eddi ñanga ñendaan ñanga njum ñanga gédé ñoom ñëpp benn meññeef ñoom ñoo bokk benn maam yi dëkkuwaay nag moo leen teqale at yee passé ñoom suñu bokki bokkut yi mel na ñoo dëkk di bokk gi ñoo ñëw ba foofu moo sëñ Aliou Jaay mi ànd ak ñeneen ak mboolo indi taarix bi yëpp buñ ci sëpp ko fekk mook suñu taarix benn lañu xam ne ñëpp maam fii la rek maam fii lu mel ni seeni jóob ñoom nëkk na fi jógee ñànga de fi delluwaat njum tel siwaat fii ak ñeen sant gay yaa ngi fi sant jéey yaa fi sant jóob yaa ngi ñëpp benn lañu loolu na ci biir loolu moo waral tànk yi ñoom ñoon ko ñaan ci boobu tam bi ba tey ñoom ziare bu ñëwee seen délégation yi ñooy def jigéen ngeen kenn du des loolu rek day na lépp loolu nag tànk am na borom suñu sago lépp loo xam ne xew na fii ci dëkk bi ak lu mënta doon fekk suñu tànk day dëkk fii bokk ko yéen muy bànneex bi muy safaanoo ba waaye nag jaamu yàlla mu ngay dem ci kattanu yàlla ni yitu moomu noonu abalaxo min amalihi wa innamaa li kulli imrin maa nawaa mm-hmm. yént bi nee na yéy neexu jaam ba gëm yàlla moo gën a mat jëfam ndax ji nit da nga jëf loo xam ne njës la lu nekkul ci yow nit da nga wax lu nekkul ci yow moo tax mu wanee nag ni jë yéy moo gën a mat jëf te yàlla moom du jàppee nit gi lu muy lu ma yéy ne ne yéy bi kay mu ngi fi toujours mu ngi fi daa iman mu ngi fi ci yéen lépp li ngeen seq jël ko xam ne noo yéen noonu ko bokk incha allah tabaraka wa taala di ñaan nag yenn noonu yàlla kattanal li ngeen naka ca kawam depuis ci lu jiir alaji maasir ba alaji yi ñëw yéen fi dëgg seen tànk mu yokk almone dañoo ñaan almone boo déwéen nag yàlla ful ful ful ful yoo xam ne dafa nekk ay yoon yoon lu ëpp loo xam ne passé woon daaw di ñaan nag kattan googu yàlla def ko ci njaboot yi ndaxte njaboot yéen ñoo gën a bëggalee tey fu nu fekkoon maam yi dëgg seen tànk du ñoo ñaan ci yàlla yan na yàlla ma dëgg fa sunuy tànk ñaan njaboot ya dëgg fa seen tànk bu mu ëpp ko sax ci boor yàlla nag tey ñaan yàlla yan yàlla raxas xol yi ak xol yi boole xol yi xëy nu bëggante soppante jàppante te yàlla tax lépp lu ñuy yëngatoo yàlla bu ko def lu may mun ngi yàlla mañ yàlla ba gi leen ko lu yàgg yan fi yàlla bàyyi mañ yu yàgg rafetal muy yi rafetal ko mbooloom jullit fu waay ne ak fu mu jógee bay ñëw fii ñi ñaan ci boolu yàlla ci kattanam ci barki yonent bi barki ci Ahmad Tijaani jéegu bu mu jéeg dëgg ko ci suuf yan na ko yàlla defa muy tuyaaba ci boori yàlla muy ubbi teekum ci boori yàlla te fëlal ko muy mucc dem ci boori yàlla ak mboolem jullit ñëpp ak ku ñëw ko ñuul yëpp danañ ñoo ñaan ci boori yàlla dee sara ko ñaan nag wasalaatu wasalaam ala rasulillah sa alayhi wasallam ngeen baax la xanaa di ñoo woo léegi boo nun bokkee yéen liggéey bi yëpp waaye di ñoo woo léegi ni suñ benn soxna dafa gaañu ci ñàng ñen daal te ñun ni ñooy xaar xam nga nag toog da xaar man kam toujours dama wax dani bu nit gaañoo bu ñu ko xaaree kenn ndax am na ñoo xam ne ñi toog da xaar borom ngant fi am ay mag ak ñoo xam ne wéruñu te boo jógee dañ day rus da ngay xam nga waa Fuuta nañu mel jullit nee bu ñëpp nga toog rek nga rot yaa ngi dem te fekk xamuñu ngante boo ànd yow yaa ko xam ak sa bopp ma toujours man dama bu nit gaañoo rek tànk pare nii rek ni xiir waaye na ñun ñu ngi nooy xaar moo tax nag ñu ngi leen saraxu ñaan daal ngeen jéggal nu Eh, noo leen masawu da ñaan bés bi yan na yàlla def muy dem di dellu si wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu da ngay jërëjëf séenu ñu ko tuddee mu koro mu ànd waaw dafa am ñaar ñetti séenu moo am séenu bu muxtaar ak séenu jóob boobu ki ñëwoon fi ak séenu séenu ba ngay wax ki ju ay su séenu mu jure ay sëriñ bi boobu nag séenu bel nañ ko tuddee séenu jóob boobu nañ ko tudd waaw noonu moo waxee rek sëriñ bi fa tabarakallaahu ne nu sama doom bii de moo mag ci daara ji waaye ki nga xam ne spécialité la moo xam pro moo xam histoire mooy Maodo gay dafa tukki waaye balaa midi dina ñëw nga ñëw daal di leeral fa tabarakallah sona xaalixi na diiru na faa dem nag amuñu ci benn la ñoo regretté bu nu ñëwee daanu teral yóbbu nu ci kaw dalal nu kon baal nañ leen ngeen ñaanal nu dem ci seen aajo seen yéene mat na loo ci macha allah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di kontaan si teewaay bi di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal taxawaay yàlla guddal fan yi si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, di leen bëggee lu bëree bëri ñu ngi koy wax sànq ne tey bés bi dafa bés dafa ala dawme ndax ah, ah, Seydi Malick moo fi jógee sànq mu ngi fii di jàng alxuraan jógee gaaya ah ñu Seydi Malick ñëwaat encore jógee njàngay di. ah mu tombé ak anniversaire u Cheikh Sidi Aboubacar radiyallahu taala anhu ah ñu ne nag bés bi bésu ñaan la waaw fi mu nekk nii wóor naa ne monde bi yëpp actuellement ñu ngi célébrer tey bés bi muy bésu bu nga xamante ne c'est le Cheikh Sidi Aboubacar radiyallahu taala anhu génne woon àdduna muy le 25 mars ah, tey xon tam ñaan yooyu la ñuy fexe rek fajaliwaat ko defoon nañ ko sànq. mais ku mel ni Seydi Hadji Malick moo tax bu fi ñëwee tey dañ ko jox moo tax mu def ñaan ñaanal suñu wéyjur woowu ah ñaanal mbokk yëpp ñu ñaanal yàlla ni nga ko waxee léegi soxna soosu génn àdduna yàlla yàlla yërëm ko si jégal ko mu tamit tombé na ak ak anniversaire góor gi ah yal yàlla jotal ko si yoolu yiw yi si barzax yàlla xaaral ko àjjana si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo taxoo ñëwee dañ jël kàddu rek ah ñaan la nga ñaanal si bés bi tey dolli ñaan parce que yéen a ngi si lañ dëkk wax dëgg yàlla ñaan yàlla yàggal taxawaay bi di kilifa yi wax ne Cheikh Cheikh mu Moutaga radiyallahu ta'ala dafa ne kilifa dañ koy ñaanal mu ne dañ koy ñaanal yàlla gudd fan bu ànd wér mu ne fekk mu ngi am gudd fan bu ànd ak wér mu mën di la taxaw mun tamit ñu leen ñaanal yàlla yàlla dafa leen gudd fan bu ànd ak wér yàlla doolu leen kàttan parce que lii kàttan moo ko mën boo ñëwee léegi bokkal ñu wax la nga war a wala delluwaat dëkk ba boo amul kàttan doo ko mën macha allah ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla dëgëral leen yàlla yàlla leen sàmm si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatullahi wa barakaatu macha allah bismillah ak seen i pas-pas waaye ñu boo ñëwee ci ñu tedd dara ñu jël seen mbubu solo la waaye fekkoon du ci yow ci ñoom la waaye ñun kay dañoo saraxu ñaan fu ñu toll lañaan ñaan ne yàlla def nu ci taalibe waaye booru xam-xam ñun kas kas yéen ci bosoon na gis nu ci dara amuñu ci dara waaye nag ci seen yéene ak seen kattan ak seen pas-pas yàlla mën na matal lépp kon ñoom na waxee ñu fas yéene ñaanalante ñaanal sunu kilifa gi wax gi xadi Babacar Si ak mboolem sunu kilif muqaddam yi ak ñu dul muqaddam yi yëpp te taalib tijaan yëpp ak julli ñi yëpp ñi naka barsax ak ñi naka ci kaw suuf yëpp ne leen see dabee yan na yàlla rafetal lépp ñu ci laaxat yan na rafet naat am nañ ci yaakaar len nag dafa am na danañ da ko wax kooku moom mars bani aadama àggu fa yéy ne nag moo fa dee xëy na ni ku diw ko malee la diw malewul teguñu ko fenn yàlla moo xam ko texe bu nit jibee nag jib ju ba dee ci ayamen billaay yàlla mu ci alquran ni kookee ka gëm yàlla di jib jib ju ba dee aljana la jëm waaye nag si abd sayidna aboubacar am na lu mu wax moo tax ñu xaw ci ragal tuuti ndax mu ngi bokk ci fukk ñu ngi seede aljana mën moom de boo demoon ba tànku ndeyjooram bi dugg aljana tànk tànk càmmooy bi fekkiwut óoloogu suñu borom bi ñu ko lu tax mu inna laa yusarrifu abdu haysu ma yàlla day soppale walbati yaa na ko soobee kon nag njort yàlla ñoo fi des ñoom suñu kilifa yi ñu ngi ñaan yàlla yan nu yàlla taas ci seen ñu fi deseet yan nañu yàlla may roy leen dëgg ci ñu dëggoon fi ñu jaaru ñu jaar ba am li ñu am di ñaan yàlla kattanal nu mel ne yàlla tasaare ci jullit ñëpp i ci bar sax ak ñi nari ñëw yàlla dugalal ñun ñëpp ci seen xéewal bi jaay seex kon noonu fas yéene faatiye benn yoon ñetti per salaatul faatiye yàlla yenn yàlla yembel lépp yenn yàlla baaxal lépp yenn yàlla rafetal lépp yenn yàlla yóbbu lépp ci kanam kanam am na sallallahu alayhi wa sallam digal nun duñu dara xamuñu dara mënuñu dara waaye xanaa jaamu yàlla rek mi ngi dem ci kattanu pas-pasu jaamu yàlla seeni pas-pas nag mën na yóbbu fa neen kon nañ ngeen fas yéene rek xam ni yéen la du ñun ñu fas yéene faati benn yoon ñetti per salaatul faati yi ak salaatu bu waaye man mu jàng ko ñetti yoon mu ji juróom-ñeenti yoon liñ wax ñu fas ko yéene yal na yàlla may ko teeweet bi déwén fekk ko fi ñëw fu mu jógee ba fu muy delloo ñu ñaan jéeg bu mu jéeg dëgg bu mu dëgg yan na ko yàlla muy furu bakkaaram na yan yan na ko yàlla defal muy dolli teew ci booru yàlla muy ubbite ko booru warsak ak mba ak barke ci booru yàlla muy mucc itam ci addu ak laaxira bu jaay soo xamante yoo xor ma ko ne yaa ilal amin bisimilah aoudu billahi مؤمن والوزير الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا أنت ولينا وولينا باليمد ونعم النصير أنت ولينا ومولينا ونعم المولى ونعم النصير أنت ولينا ومولينا ونعم المولى ونعم النصير اللهم ادفع عنا وعن المسلمين اللهم اجبر حالنا وحال المسلمين اللهم انصر أولادنا وأمن ذواتنا بجاه سيد المرسلين جاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بلقيه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 ربنا la بعد أبي الغد من هرتين هداية ونبوة علينا وعلى نبي وعليه ويعلمنا صلاة النبي وعليه بسهر الجلة مهمة على نبي على نبي وآله علينا صلاة ربنا دائما عام بصمودنين أتنت حبيس شمر تقرا لقادة الغرب في رجلي كريما di wax alhamdulilahi rabbil alamin niñ ko waxee woon sànq la in shakartum la azidannakum suñu borom mu ne boole ma sante ma dolli leen képp ku nekk si ñun ñeede woon na jataay bi fekke ko donc boo naree mbir suñu borom sottal ko nañ ko delloo njukkal wax ko alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi koy sàkk su ku nekk mu wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin bésu tey bi macha allah dafa dafa particulier trop trop wax nañ ko sànq si biir ne ni kilifa gi suñ Mansour radiyallahu taala di xarit di sëriñ Maodo Diop macha allah eh, danaa wax ne bés bi dafa ala dawme mais tey nag laa gëm dëgg-dëgg na bés bi ala dawme na eh, ndax ay Sidi Hadji rek ñoo fi daje sanq bi ñuy jàng kaamil Sidi Hadji Malick wele moo jàng xatnu bi ñu ne déet na waaye Sidi Hadji Malick jógee njàng idi ñëw tamit. def fi ñaan muy ñaar bu jiite bi sax lañu ñu war a njëkkee ne Seydi Hadji Malick yàlla taal fii la jàngee risaala macha allah ah donc li mu làmb dafa bëri beneen Seydi Hadji Malick Diop moom tamit rox si fi donc <laughs> macha allah donc bés bi tey dafa particulier mais beneen bés gën a mag mooy tey la anniversaire Serigne Babacar Sy radiyallahu taala moo tax ma ni dafa alaa doom mi dëgg dëgg nag dafa alaa doom mi yàlla ñu yàlla fayal suñu góor googu du gudd nag parce que temps bi xaw na ñoo xoj lool dañuy jox suñu kilifa Moussa El Hadj Moussa Ndiaye nga xamante ne moom mooy suñu président dañu woon parrain yi ni ñu ko defe woon jox ku nekk mu wax ci turu parrain yi mais comme temps bi xoj nañu dañ koy jox moom mu yóbbaale ñëpp géew te mën na ko parce que mboq gi benn la ku wax rek yóbbaale moromam donc El Hadj jox kàddu gi boo paree muhammadin wa sallim alhamdulillah lasi hadana li hasa wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah assalaamu aleykum wa wa barakatuhu mbokk yi fi ci góor ak ci jigéen mag ak ndaw ñi jóge ci gox senegaal yi fasante ko ñoom ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm te di leen ndokkeel di leen massaw ci coono ñëw yi te yan na yàlla def ko muy yiw dellu itam coono la waaye yan na yàlla def lépp muy yiw ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa mu mel ni ci tàmbali <clears throat> dañu waxoon ni ñi nga xam ni mag lañu ci ñun di najaay di baay di maam ñu di leen fàttaleku tuddee leen bés bi bëggoon nañu kenn ku nekk ci ñoom ñu indi ku wax ci seen dayoo tuuti waaye comme waxtu wi mayuñu ko ñu santamali naa leen tudd rek naa tudd tur yi ndax ñi fi teew ak ñi fi teewul yépp xam nañ leen ak ci tàmbali euh, alxaaji jibril njong géey euh, ñaari yoon ci semaine bi biig moom lañ doon tudd euh, astaghfirullah barki biig moom lañ doon tudd ca gàmmu ga ñu tuddee woon ko ko ñun yëgoo wu ñu de ñun tam ñu tuddeeku ko Alaaji Jibril Ndiongo Guèye ku ne xam na ko mag la woon mu dëggu mag la woon moo xam ni e, ku nangu woon sonn ci njaboot e, ñun ñi xam nañ ci dara njabootam li ñuy wax nii e, xam nañ ni fenuñu ko dëgg lañu wax ku sonnoon ci njaboot la e tey jii fa tabaarakallaahu gis ngeen njabootam e, seen taxawaay ci dëkk bi fii ak fa ñu nekk ca Ndakaaru kon Alaaji Jibril njong Guèye loolu rek la ñuy wax ci moom suñu maam la ki ci topp di alxaaji xaali gay njaay kooku itam fa tabarakallahu euh, li ma bëgg wax ci moom rek mooy euh, jullit la gor la waaye ku doon dundee ñaqam la ba bu mu fiy jóge yal na yàlla xaar leen àjjana ndax moom navigateur la woon xam naa ko parce que métier mu metti la waaye ca la doon dund di ci dundal njabootam di ci dundal njabootam ba xëy jóge fi te itam noonu la doon taxawee euh, ci mbokk yi kon euh, ki ci topp di alxaaji saaliwu walla saalif waxa jóob euh, kooku suñu maam la moom tam ñii ma tudd yépp samay maam lañu fa tabaarakallaahu <clears throat> moom maam saalif jóob tafsir saalif jóob boo demee Dagana boo waxul tafsir Salif Diop doo ko gis ndax ku yàlla joxoon la xam-xam boo xam ni eh, fa tabarakallahu demoon na moom góor gi ba doon na wax ci anglais ci français yépp daf ko doon wax góor gi eh, métier yépp la mënoon li mu xam ci alquran ak li mu làmb noonu la xamee métier yépp parce que nee na góor moom dafa wax ni góor dégg warul di jël dara lu muy liggéey ci këram di ko santaane waaw kon këram yi mu jëkk dëkk yépp muy ci Dagana muy ca Ndakaaru yépp moo ko tabaxal boppam xanaa ci ginnaaw gi lañ ci def yeneen tabax lii ma wax ni wér na ci njabootam xam nañ ni fenuma ko ndax man dama doon dem ci këram gis naa liggéey ba ba mu fa daan def et ki ci topp di Adja Binta Njaay kooku it maam la fa tabarakallahu e moom itam jigéen ju mën góor la moom la mën a wax fa tabarakallahu daf fi doon dund ci ngor di dund ci jullit di jaamu yàlla di toppatoo njabootam ba bu mu fiy jóge loolu alors lu wér la ki ci topp di Adja Racky Njaay Géy kooku itam maam la doon dund moom tam ca Ndar euh, fa lañ ko xamee xamee wuñ ko fii ci bokkal biñ demee Ndar lañ ko xam moom itam ba tey euh, ñoom ñépp nag ñoo yem ci mbooloo mi benn tànk la ak benn côté ndeyjoor côté càmmooñ yépp ñoo ko bokk eh, fa tabarakallahu rakki géey xam naa ko bu baax mag la woon handicapé la woon waaye taxul woon mu toog daf doon liggéey guddi ak bëccëg boo demee marché fekk ba mu xëy ci suba ba ngoon di daan dooleem lu mu am mu indi ko ci njabootam kon ñi fa tabaarakallaahu la bëggoon joxe seen tur ñu xam ni fàttewuñu mag ñi fàttali moom lañ ci jublu duñu leen fàtte ba mukk nag ba illaa yawmi diin yal na yàlla xaar leen ca àjjana yi gën a ci barke yonante bi sallallahu alayhi wa kon comme temps bi daf ñu xoj eh, ñu jox suñu mbokk mi alxaaji Alioune Dia mu am kàddu yam ci toftal ci lii ma wax ci mag ñooñu wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu sambil alim min alseytaan arrajim bismillahi rahmani rahimi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin alhamdulillahi ñu sant mawlaana tabaraka wa taala buur bu yow bu tedd boobule di seen xarit di sunu xarit yan nag continuer di yow di tedd ci nun ilaa yawmi diin di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam afdalu salaam wa xayra salaam di jokkake ay kàddu ci président national waxam waxoon na Ablaye sax signalé naa ko ni ko motu ko doy na sëkk ci lu ma wax waaye xanaa fekkee muccul leen ci dolli rek mooy sant leen yéen waa Dakar nun bokkal yob di leen bisimila di leen tatagal di kontaan ki seeni façon yu yow yu tedd yi dama wax biig ni kóllëre gi ngeen joxe ci sunu mag ñi dem ya laaxira ba taxawal li yenn leen yàlla suturaal yaa mawlaana yasir kitaabana yasir isaabana yombal seen téere yombal seen bés penc ci barke bi sallallahu alayhi leen cee dolli mooy bokkal nag tey xam ngeen bëccëg bi nii du leen gis ñu bare parce que ñu bare dem nañu tool bu diggee tade bu leen gisul mbooloo noonu la deme ci wàllu kilifa yi nag bari mii teew si xam ngeen ko dum leen ko wax mooy kan imaamul akbar dem nañ fa léegi dafa ami gan moo tax mënul ñëw waa ñànga yet gis ngeen leen ñëw nañ fi fii la fanaan biig dem ngeen ca jàngee dem nañu ba ci sëñ Bay Abdou kontaan na ci ñoom ñaanal leen ñu ñaanalante ñoom kontaan nañu waaye buy ñëwee bu kër Ibrahima ja dañ leen téléphoné ne am na ku faatu ci ñanga ñandaan ndax ñanga ñandaan ak ñanga idi du benn ñu war fa dem directement yelaat day def seede ci mbir moo gis fi mu doon ndekkee la ko benn waay woo ni ko ndax nu suul wala nu xaarle mu ni ngee xaar ma kon fabriqué ko dëgg la wax na la bokk wax naa ko ni ko bu nu ñëwee njàng Ibrahima Gaye Mapate Gaye Samba gay Aliou Gaye Fama Gaye et cetera et cetera ila axariha ca la nu wax Seydou Diop waaja jóg tëb ni sunu baay bii ngeen siyaar Seydou jóoba yaayam kon yéen amul wax noo bokk maam bokk maamaat bokk diine bokk tariixa loolu la waxaat ci biir kër gi feddali ko suñu demee njàngeet nañoo def dañoo ubbil géew bi nu ñëw ñu dàq ñëpp ñu toog góor gi wax wax wax wax wax ba tabaarakallaahu xam naa sax su doon bañ ñu tex ma incha allahu danaa fa jële ab bikkara maanaam xiit jànq boo xam ni fa tabaarakallaahu macha allah <laughs> waaye yàlla def ma ragal nag maas gaañ yi jeeg gi lee ñu ma euh, falambo waaw yàq samay mbir kon fa tabarakallah sona xaali xiin yal na yàlla barkeel dara jaal nu fekkee déwén muy barke Ceerno Ibrahima yaa ngoog noo ngi jamono ngoog yal na la yàlla suturaal ba nga teer waaye man nag malade la